asalaamaaleykum mbokk yi dal leen jàmm ci 5 TV waxtu yi jot na ngi ñu faram-fàcce leen di gën a fës ci xibaar yi. ci gën a fës nag dañ koy dooree ak observateur moom mi nga xam ne dafa xëy rek di ñëw wax ci ki nga xam ne mooy Ramatoulaye si rek di ndaw si doon dugg ci école yi ak wër ci mbedd mi di kidnappé li nga xam ne mooy doomu jàmbur bi loolee la journal bi xëy di ñu wax histoire am moom nag depuis atum 2017 la tàmbali kidnapping boobee ci loolee nag li jaaxal ñëpp mooy waa ji waa police ak ñeneen ñi xam nañ ko gis nañ ko te xàmme nañ ko waaye ba tey rek mu ngi wëy di lawal ay dox doxam rawat na rek mu ngi jàppat ay doomu jàmbur di leen ñu waxaat nag ci leneen ci ñi nga xam ne rek ñoo amatuloo benn yaakaar ci seen liggéey nag mooy ñi nga xam ne bërekat yi Sénégal les éco nee na lu bëri ci mbër yi nag ñu ngi ñaan visa rek ngir mën a daw biti réew uti fa liggéey loolee nag la kii mbër bi di euh, boykaar yi nag di xamle nee na lu tolloo ko ñaar téeméeri mbër nag ñu ngi ci bitim réew ngir rek ut fa liggéey ndax dañoo jàpp ne làmb ji doxatul amatuñu combat te seen xamudoo nan lay demee ci loolee nag ki nga xam ne mooy Bécaye mbay nag nekk koo xam ne day yëngu ci wàllum lamb ji rek jot na rek di si ñaan ñi nga xamne ne yor secteur bobé ñu dal di gaaw faagaagal mbir bobé ndax su du day yàq li nga xamne mom la lamb ji amon ci ndirign le journal critique dafa xey rek di wax ci ki nga xamne moy Colette sengor nekkoon jabaru ndem si yalla leopold cedar sengor mom nak ginnaaw ba mu fàttoo semaine be ñu passé nak niki suba nak dinañ ko jébbal boromam fi ci euh, Sénégal ca cimetière bi nga xamantene moy belair fi ñu denc ki nga xamne moy leopold cedar sengor Senghor moom nag seeni mariage mu ngi am le 18 octobre 1957 nekkoon nit ku soppoon na Senghor waaye tamit bëggoon ko ci li nga xam ne loolu la am ci wàllum njàng loole sax moo gën a yokk seeni mariage ñu wax ci Vox Populi moom dafa xëy rek di ñu wax ne ci dëgg-dëgg rek ñii di waa Senelec nag dañoo yokk seeni prix li waral loole mooy dañoo am benn pax boo xamante ne lu tolloo ko 10 millions bu franc CFA moo ko mun a fat bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy Pape Samba Bitèye nag mooy jëwri bu ñu denk wàllu courant bi te nee na mbir boobee rek du askan wi yëpp la ñuy yokkal seeni prix nee na dañoo am ñenn ñoo xam ne rek dañ ko attan te ñooñee lañ koy jox moo tax nag mu ne lu tolloog 1 million 130 31 53 clients wu rek dañ ci jël. 611 203 rek ñom lañu jël courant ndax dañ ko atal lolé waral nak ñi di bu ar lu ñu bokk nak a def tay benn ndaje place de l'obélisque ngir ñaaw lu li mel mbokk a fës nag ci leen lo ci xibaari ku leen ko doon jukul di seen ndaw Aminata ci technique